अल्लाह तेरा है एहसान रोज नमाजे और कुरान है ये सब रूहे ईमान नूरे रमजान हाँ? Salam alaikum. booy fi nga dëkk. waaw. ah kër Moustapha kon lay laaj connexion. fan. Moustapha connexion. kon de xaw ma. waaye ca ci rajo ngaay bi. kon de foofu xaw ma foofu. booy yow foo ne ba rajo. man du ma déglu rajo de. ah doo xam lu xew ci réew mi. man kër gi ma jëm baamu mu ci si arma bi de bi ne xaaf-xaaf dama tiit man baara boro boro ah waaye ubil waaye bo boo ubé di nga xam kan kanay fëgg yow ah. yow taf dëkkul fi dëkk fi de man taf man la yapp évité ma ndogu ma ràcc ràcc ci mbedd ngaay fu ne ma talax talax ba ñëw ba fii ah nga naan ma dëkkul fi waay. ah toog de. dinaa toog de ah fu may toog ku ni fii. ma ah. jóge fii ah dëkk fii ba pare ndogu doog a dem. Ah. comme xamu fu ma jëm. danaa ndogu doog dem. te maa ndogu dem waaw soo dàll yi kon yi di loo wax baax na de. waaw ak saagam bu rëy bi muy laaj ak laaj bi. waaw bu ndogu li lakkee rek rek man ndogu de. waaw maa ndogu yow ay waay booy yaa siis. yaa siis waaw damaa siis kay. xaaral ma dem sax. li ngay siis lépp. moo ma siy gërëm weeru koor bi ñëpp def lu baax. moo ma siy gërëm nga ne fii di ŋaññi ŋaññi ndax ceeb wala ay mburu. waaw moo ma gërëm ma yab moom mi may invité ndogu ca xaw ma fu mu dëkk ci ngaay. ma koy woo mu bay téléphone am. waaw. baal ma dem sax. man wóor na Rasulullah